puissant et stylé. Des soins qui vous ressemblent. Dream. il faut qu'on essaie de voir comment on va faire avec euh, tes parents ñu yóbbu leen sukkur koor ko. d'accord bébé. d'accord vraiment la sax si sa yaay la dama ko nangu. Ah, waaw y a pas de souci. alhamdulilah. Hmm. <laughs> ak maanaam j'ai tellement envie de te prendre dans mes bras. Hmm. Tu fais un gros câlin. Hmm. nii laay la mu ci yow. yaa sama xarit. pare nga indi bàyyi c'est bon maintenant. non bàyyi rek. tey rek moom baax kay day egg. d'accord loolu la ne sa refus baax. léegi xaw ma ne woon raxas sincèrement. yow tamit yow des fois nag ñii la tam góor bëggal sa jabar. man nii bëgg day am. man nii nii ma tam amul amul amul ay journée de la femme tu dois les jours rendre heureuse la tax dëgg naa sama mi ngi nag. kon na nii de parce que man nag ah gis na man dafa ma war a am ñaareel yaa ngi war a xam góor ñeenti jabar la amee waaw damay foore rek eh wéy ma wéy ma yaay sama aaw yaay sama ñaareel yaay sama lépp waaw. tel def boobu baax rek may am jàmm soo ma mayee jàmm rek mu nice. na leer daal lu leer daal laa bëgg. yaay sama xarit yaay sama xarit waaw. waaw ñu def yu baax yi. <laughs> waaw mais yow keroog yaa ngi wax sa sa sa commune bu lay jaay cuuraay ba ñu ko def. mais yow ni nga léegi ma changé sama gàttu cuuraay. cuuraay yu baax sama yàlla ma wax na ma gis na jigéen jonge ñam yemul ci jigéen a jonge man ma ay cuuraay ay bin bin yow da man moom may may jàmm de. soxna soo soo soo koy xam ah soo daf ko de parce que balaa may dem ut ñaara boo xam ne moom te ñaara loobe laay ut. Et il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Va voir. C'est qui Je sais qui Matin là. Ok. Patin bonjour, ça va Tu vas bien Arrête de m'appeler bébé s'il te plaît, d'accord eh, ah te tey daf may jàppale. maa ah, sonn ci kër gi yow. Ah, mais noonu la góor lay jógee. waxuma ko nag nga dem taal ko waa dëkk bi ah. ah. waaw Maris xamal moom. lii sama jabar laa koy defaral. waaw amul problème. ok ok. maa ngi fi d'accord j'arrive. waaw waaw. yaa may andi ku nekk ci kër gi. yaa may andi ku nekk ci kër gi. bii bàyyi jàmbur. ah. bàyyi jàmbur. yaa may andi ku nekk ci kër gi de. waaw bàyyi ma leen kii. sa diggu bébé baax sa yónnee ko sama digg xoolal wuy ma xam nga nag la la yow da nga pël de boo ñëwee nag ma nuyu bu ma laaj ci waaw ñoo far yow ñoo far da nga pël nag lii moo tax lu ma ci bëgg amul problème tey ñoo far sama bopp bàyyi ok yow la ko. trop. damaa romb couple bi fii mais damaa kontaan si ñoom. mu nekk madam. ñoom da nga leen bët yow. ñëwati nga de teg nga leen bët trop. bébé ak suu léegi nee nañ ak suu la. bébé ak suu. waaw dama bëgg na nga toog ñu xam nga wax la sérieux quoi foofu ma. xam nga laa la bëgg wax. loo mel ni tey loo mel ni waat ci yow dara pataay yaa noonu rek yow. waaw waaw mu changé mukk. man kuubul bee kuubul bee bu ngeen def pourquoi pas ma ak maa yow nga mënoo maa wàcc est-ce que dama lay ba fàtte man. kon bi man la ñuy xëccoo. ku lay xëccoo xanaa danaa gisul wala mu gis la guddi. est-ce que doo ma arrêté doo arrêté s'il te plaît. Eh, doo ma bàyyi. dëgg laa lay wax nii de pour yow la may foofu. commencé ma demal. dama nga may bàyyi mën na man dem fenn ci man rek xam dafa mën a jouer billard mu ngi di

yow de loolu rek nga bëgg. essayé ma koo wax ndax dinaa nangu. yow loolu nga bëgg laa wax nga bëgg ma wax la ko. man essayé man dinaa nangu ndax dama lay seetlu wala seetlu ma essayé ma koo wax. yow mii nga ne yow loolu nga bëgg de loolu nga bëgg ma wax la ko bàyyi ma man. yow ma ko waxee rek xam sama jikko ndax dinaa la wax waaw wala déet essayé ma ko. patay nañ génn waaw. xooloo ma de. ma ma ne nañ génn léegi. maa ngi xalaat bàyyi fi ngoon naa la wax dara. xalaat. nañ ko bàyyi. Ah. man sama kii laa yor di bàyyi naa ko. sax nga doon da man man dama doon nax rek. nax ma doon nax kon génn bi bàyyi nañ ko waaw kon nañ ko bàyyi. moo soo ko bàyyi de bàyyi gu ko xanaa la nga lan nga wax comprendre say mbir. maintenant je mérite un dernier bisou. d'accord Pierre je vais te faire un gros câlin. Je mmh. sama xarit yàlla yàlla yokk Je suñu diggante. faire ay jeune couple vais faire dafa war a neex. Mmh. faire ça. su ma gisee ay jeune couple di Je daf may métti daf may métti. Ah, yàlla baax na yàlla na yàlla mosoo mmh. sama temps nekk

lii mooy lan lii mooy lan wàccal sa tànk man yaa ngi sa kër. soo nelaw nag génn ci biti wala dem sa kër bëggatuma la gis na sa tànk ci lii lii mooy lan bëgguma lii de. loo ma jar naa la non salut ma correctement. bébé loo muy diggee nii yow ma wax mënoo ma wax bàyyi di ma ne bébé. ah waaye yow entre parenthèses ba ma leen gisee damaa kontaan xam nga. moo kontaan trop gisee ñaari nit yu nekk. jëkkër ak jabar. surtout ñu doon xale. seen kër dafa war a neex. daa war a neex loolu laay wax maam yi ma ne ko gis nga fii Aïssa Aïssa. bàyyi ko rakam bi ma ne ko gis nga ñii seen diggante ne doo ñëw ma jël la defaral la. bàyyi ko bu ndaw ko. bàyyi ko ko bàyyi ko waaw nooy waxee nii bàyyi kooku. ba ma jox xale bi ma jël ko defaral ko bu cur. non. ah. non sa comportement bi neexuma yow kii mënoo ko yow. man ma yor ñu ëpp kii la. kii mun te en plus kii wax naa la sama belle sœur la ma am ak wax ay moom ay waxu ay may déedéet elle me respecte trop moi c'est pareil donc am na foo xam ne dama ko yem ak moom parce que man bëgguma nit dépassé ma. ba loolu ba tax na yow yéene woo ma xale bi quoi. yow non. lu tax. tu n'es pas son profil. du sama profil. ah waaw amul problème même yow ki ngay àndal nii du sa profil bi sa woo bi. ah déedéet. dégg nga déedéet parce que nan laay nobee nit wax la ko nga ne mu du sa eh, produit. Eh, eh. même yow ki ngay àndal woowu woowu. c'est pas ton produit. naa la loolu bu mu génnati sa gémmiñ. keroog waxtaan nañ man ak yow déggoo nañ ci kàddu. wax wi bu ko waxati sama kër te sama jabar bi ni fii. ah non. arrête ce que tu fais. non arrête pas ce que tu fais il faut que je parte parce que nag maa wax lu ma métti jox ma xale bi nee ma déet waaw wala waaw. tey xale bi ko jox et puis ça m'engage moom man may certes que elle va me demander mon avis. kii naa ko wax ko séance fa. Eh. Ah, eh. chez moi ce n'est pas un bordel. Hmm. d'accord ok c'est bon tu vois. problème pour ma bàyyi affaire xale bële moom. foog nga jox ma li ma moom. loolu sama bi ma man néeg bi moo may noppiloo de. affaire néeg bi dama bëgg man maay kilifa ma maay dogal ba su ma neexee xool sa comportement neex na ma surtout doon naa. waaw man it ça me dérange pas. waaw man it amul problème man it sama gémmiñ maa ko moom. mais c'est ton problème. waaw amul benn problème ça que toi. léegi man ma toog ak bébé ma wax lu ma ma toog ak madame. hey ma ne ko bébé mooy loolu. non sax dama noo ko. ah bon. hey ça n'engage que toi. maanaam wax ko ko. ça n'engage que toi. maanaam wax ko ko. man kenn du ma chantage. man soo bëggee am dara ci man. dañ koy jaar ci yoon bi. yow yow yow. woo moom léegi baalu woo ma keroog. nga ne bu ma ko xoox parce que moom nga bëgg sax. keroog keroog la. Ah, tey tey ah. la ah, la léegi c'est pas grave man lu ma gis laa wax rek naa ko ne man. Eh, léegi pour ma wax la loo xamul ba may topp seen ginnaaw sama téléphone laa yor di filmer. mais xanaa déglu ma di photo. ça n'engage que toi Diambar. xam nga dafa doon neex. Hmm. man kenn waaw kon mun naa ko dugal Facebook. ak WhatsApp Sabak Instagram. cetera. xanaa déglu mu wax. léegi loolu kenn du ma chantage. na sa xel dal. tu viens on parle oh. tranquillement. et puis et puis c'est fini. Eh, eh, eh, wàccal sa tànk elle dort elle dort. wàccal sa tànk laisse-moi elle dort. Fatin. elle dort. wàccal sa tànk. ok da ngay mun wàcc sa tànk munoo ko tu sors de chez moi. tu ne sors pas c'est chez toi. c'est toi qui m'appelle. man maa la woo wala sama jabar moo la woo. ah. toi femme te ma femme. ok. qu'est-ce qu'il y a bébé.

am foogoon xamoo ko maa ko tey dama la doon def dama la doon seetlu rek. dama léegi amul problème. yow amoo xarit. xarit. garant yow foo dëkk foofu. amoo ay andandoo ñoo xam ne yaa leen màggandoo fawndoo. tu waa Café ga ñu ngi fa ñoom Papa ñoom Sali. ñoom Baba ñu ngi foofu. sekk booy sekk ay feccikat lañ léegi xam nga ay feccikat bu nekk kan ndax cabinet yow bu dex dem douze puub. Eh, eh, eh, xam nga daal yooyu. Je ne bidon je suis pas avec quand tu parles avec moi sois correct eh, arrête. non. bu eh, coule eh, que dans le cabinet yóbbu vous den que dans le théâtre le théâtre hein, xam nga je sais. Arrêtez là là, oh. là, Arrêtez oh, cabinet. eh cabinet oui. dépassé eh tur je suis Je xam nga c'est que lenn lenn xaw yéen da ngeen bokk ci man. yow sa jabar moo ma nopp. moo ma bëgg. déglu ma def ma ci xolam. ma déglu naa la man man ñii laa def soo demee su ne nee papi yi il est comme ça. dégg naa nga dégg def naa recherche. dégg naa yóbbu kati document nga foofu rek ci bureau bi ngay dugal document soo paree dugal fii pare dugal fii. ñu signé. ñu fii naan maay directeur bi man eh. dem naa entreprise ba. Eh, eh, loolu ça n'engage que toi ce n'est pas mon problème bref concernant la chambre tout dépend de ton comportement si tu es correct je te donne. Euh, dans le cas contraire. voilà pour comportement minutes il faut changer à vie. vie d'accord. Magaw. Pakite yun rek man. Bugumali ha? Abang. Wala. Pakite yun rek man. Dito tayo sa plala. Lala. Ako? Ah. Lukucuan to. Ano ne? Kudu yam. Kudu yam pa yam yam. Yam pa kay yam. Mana peti? Peti ngas. Ba. May kanya kana lang at kanya. Punta sa mga buruk ko. Oh, defro ko ba jadi? Punta. Wala ko buruk ko na. même si ceeb bi daa neex. man ba nga ñaan. yow añal añal lekk yow rek yaa tax ma dugg ci wàññi toog. eh ba sama yoon ñaan ne ay jëkkër jabar lañ mënoo bàyyi loolu yow. yow eh, añal foofu nga trop. Attends, je trop. ba nga ñàmbi de nga ñàmbi daal dama laaj nga bëgg ñàmbi yooyu génne ma ci de dégg nga fa laa laaj ma bëgg ma bëgg ñàmbi xam nga man sof nga trop añal ñu ngi añ de la tu peux arrêter s'il te plaît tu continues non eh, eh, respecte les gens d'accord ok la yow añal bu topp kii s'il te plaît da ngay da ngi nii de kenn du suuf mami suuf rek. man génne sama yaayu bopp. il ba pare ngay dem. chérie merci d'accord. waa doon. merci merci merci. moom nag daa gaaw a. moom xamul lu ma la laa ko. ah xamul lu ma la waxul. ah. Eh, ñaar xam nañ. lu tax ci waxu daf nekkoon. Hmm?